ndax moom Ismaïla Madior Fall bi ñu ko laajee nee na jamono ji xam ne moom laa ko doon wax ak jamono nga xam ne moom la ñu nekk maanaam jamono ji bokkul nee na contexte bi ci boppam moo changé ji nag Macky Sall moo yor cëgul gu yëm wax lu jëm ci wàllum ñetteelu candidature léegi nag li nga xam ne moom la Assane Samb xii di laaj mooy interprétation ab règle maanaam dafay dépendre si contexte bi waa wala déet li Ismaïla Madior Fall wax garaaw na génn xeetu garaaw goo xam ne maanaam fu ko waaye natt daan na koy passé yéen a kaay gi di Sud Quotidien moom Ismaïla Madior Fall nee na lu jëm ci Karim Wade Khalifa Sall ñoo ngi liggéeye xool ba xam dañu leen di amnistie wala dañuy modifier code électoral bi ñaari yépp la ñuy liggéey moom Ismaïla Madior Fall bi ñu ko laajee ci lu jëm ci wàllum Aminata Touré nee na Aminata Touré nag bu dee nag dafay def loo xam ne méngawul ak bëgg-bëgg benn bokk yaakaara maanaam mandat bi dañu koy jël Aminata Touré nag ci wàllu fajri daan nay tontu Ismaïla Madior Fall nee na Ismaïla Madior Fall moom ak Macky Sall bu ñu fi dof dof la bëgg fee def ñetteelu ba jafe am ci réew mi bàyyi daal di fi roota danañu leen yóbbu fa mbaxana doone benn cour pénal international fa la ñu ko si képp koo xamante ñi nga xam ne ñoo yor wàllum ma ñoo ko xamle ci Walfadjri yéen kaay gi di la dafay quotidien Ismaïla Madior Fall nee na Karim Wade ak ñi mu àndal ñoo ngi wax lu jëm ci wàllum attewaat leen waaye Karim Wade mën nañu ko atte maanaam daan yi diis yéen kaay gi di réew mi quotidien bàyyi mbir moome wax ci lu jëm ci wàllum borom gàmmu gi Medina Baye Cheikh Mahi Niass moom nag daan nay woo ñi nga xam ne ñoo yëngutu ci wàllum politique maanaam ñu doxal jàmm yéenekaay gi ba tey Serigne Babacar Sy Mansour xalif général des a de droit moom nag daan nay woo ñëpp ñu daal dellu si si yàlla waaye tamit réseaux sociaux yeeg saagante yeeg xasante yeeg yàq dar yi nga xam ne moo ci am Serigne bi ñaawlu na ko ba fa ñaawlu yema Serigne Moustapha Sy ci journal bi di Rewmi Quotidien nee na nguurug Macky Sall dañu koy komplo bëggoon nañu ko arrêté sax fi nga xam ne mooy ci diwaanu Maroc Serigne Moustapha Sy nee na Macky Sall daf koo ragal waaye nag bis dina ñëw maanaam Tivaouane nekk ci ay loxom yéenekaay gii di Walf Fadjri nee na bi muy opposition bi ñoom ñëpp yedd nañu leen ci gàmm gi yéenekaay gii di Les Échos Serigne Babacar Sy Mansour moom nag daan nay wax lu jëm ci wàllum tolérance ci gàmm gi mi quotidien ak le soleil xëy yóbbu ñu diwaanu Diourbel ci usine agroalimentaire bi nga xam ne moo fa explosé woon limub ñi nga xam ne ñoo fay faatu lim baa ngay gën a yokk ndax jamono ji maanaam toll nañ ci juróom-ñaar yéene kaay gii di libération nee li doy ci mbir mi mooy juróom-ñaar ñoo ci faatu zéro coupable amul kenn koo xam ne teg nañu ko loxo wala ñu ne kii moo tax jëyee ji am yéene kaay gii di la tribune nee na FAO def nañu ab rapport boo xam ne lu jege benn million ci ay doomu réewum Sénégal yoo xam ne soo moytuwulee ab xiif dina leen rey yéene kaay gii libération xëy yóbbu diwaanu Pire la ci village bii di Njëyéena mooy village bi nga xam ne fa la ñu faate imam bii di Basiru Mbaye journal bi nee na am na beneen imam boo xam ne jamono ji maanaam daf cee taq rëpp di imam Mor Mbaye ndax nee nañu maanaam lépp moom moo ko planifié ndax bu njëkk bi dafa bëggoon a song Basiru Mbaye ci chantier bi nga xam ne maanaam fa la nekkoon waaye nag dafaa gis ay ouvrier moom imam Mor Mbaye mu bàyyi ba Basiru Mbaye rek ak benn doomama nekk sa jumaa jooju ñu doon tabax fa la ko fekk nag ak gaay yi moo àndaloona maanaam ñu dóor ko ba mu seddiku yooyu yéen kaay na ñeenti